seeti sëriñ Muntaxa jóge fa seeti sëñ Mbay Si Mansuur te fas yéene dem di seeti ñeneen ñi ci jaaxle ci mu def ko ñooñu ñoo nekkul ci réew mi xam nga yeewoo ci réew mi taxul nga nekk ci réew mi nekk ci réew mi mooy nga xam lan la réew mi soxla naka la ko war a amee ci njekk naka la ko war a defee naka lañu war a ku nekk considérer sunu bopp amul kenn koo xam ne kii ku jaaxle ci da nga war a seetaat sa bopp yow te xam ne yow da danga war a jël si exemple kii ak ci ñeneen mais yow yaa nekkul ci yoon wi nga xam ne moom réew mi trase wax nga ko léegi réew mi ku fi nekk te fonkoo ko lu fi diine waxuma la duñ la ko jox de mais doo fi yàgg c'est un pari que je fais réew mi képp ku ko mas a gañe ak noo ko mënti gañee ak gañe ko ba pare te ne yow yow cër yi nga xam ne moom la yàlla jox ñi nga xam ne ñoo yor réew mi ci diine ci tarixa ci soufisme ci def lu baax ci jàngale ko ci wax ko depuis de siècles ba nga xam ne ñun jàngiwuñu feneen feneen ba ñuy organiser kooñu alxuraan fii nii ko wax ma ne bu boobaay yow war nga seetaar sa bopp ngoonte bon joomaay dañ koy féliciter fii mooy yoon bi yoon bi mooy le respect de ce que nous avons de meilleur c'est notre sénégalité ni ñu bindoo ñun nga respectel ñu ko bu boobaa ñu respecté la ku ñu respecté suñu sëriñ ñu respecté la ku ñu rek respecté suñu papa ñu respecté la ku respecté suñu bundu kër ñu respecté la ko boo respecté suñu njaboot ñu respecté la donc loolu mooy li nga xam ne def na ko moom la tubaab bi defoon le colonialisme c'est ce qu'il avait fait dernier gouverneur bi fi ñëw Pierre Mesmer Pierre Mesmer moom la def moom la Senghor def di wax di tàggu ji sëñ Babacar di waxtaan ak sëñ Fallou ñi fi ñëw créer parti bi ñuy créer parti dañuy tàggoo Abdoulaye dafa tàggoo Serigne Cheikh wax na ak Gaynde Fatma waxtaan na ak ak Cheikh Fall Abdoulaye Wade Cheikh Anta Diop ci ñu taxaw ci réew mi Abdou juuf ñëw jàppal bés Touba dina ko leen seet Abdoulaye ñëw nag def li nga xam ne moom la ku nekk di def ci waajuram nekk kilifa mais jàpp ne am na kilifa te mooy sëriñ bi ñëw taxaw journaliste bind la république à genoux non la république a été une grue fekk ku daanu mu yëkkati ko mars 2021 2022 2023 si c'était pas à cause de l'autorité bu dul woon ñoom suñu réew dem te réew mi li fi waroon xew te xamaguñu ko li ñu xamagul moo ëpp li ñu xam na jàppaleen loolu président Macky wax na ne am na ay force occultes am na lu tax am na lu ñuy def fexe nañu yàlla ba yàlla boole nañu ci li nga xam ne moom la fi may mag ji bàyyi ci ñaan ñu fexe ba réew mi taxawaat na ci li mu taxaw mais réew mi li mu làq te waxu ko njort naa ne moo ëpp li ñu xam ak li ñu gis moonte bon dañuy sant autorité religieuse ñu ngi leen di ziare di leen gërëm di wax ne ñoom tamit nañ ñu dimbali dimbali aussi réew mi ci ñaan dimbali aussi euh, président de la république ci yoon wi nga xam ne moom la taxawal te yoon wi war a baax pour réew mi ñi ci des ñun politique yi ñu gënga ko ci li ñu mën bu fekkee ne aw na yoon bi mu wax ak yow ñu tàccu bu fekkee ne awul yoon boobu président dama ci force occulte dañu cee dimbali mais force occulte moom xam nañu ni def